yee voilà gars yi euh, comme ni ñu ko waxee rek du ñu jug ci di leen toppal li nga xamante ne mooy actualité ci réew mi du ñu jug aussi tamit comme ni ñu ko waxee rek durant ramadan bi chaque jour ñu ngi wàcc sur le terrain di xool xam nga ñi nga xamante ne ñooy patriotes yi ñi nga xam ne ñooy star yi ñi nga xamante ne rawatina ñooy nga xamante ni seen dëkk da leen a ñor ah ñu ngi gis ndog yi ñuy def yëpp tey nag euh, ñu ñëw fii ci Pikine buntu Pikine seet si fi koo xamante ni ndaanaan la ci réew mi tey nag mu def loo xamante ni vraiment sénégalais yëpp euh, rafetlu nañ ko parce que ni Euh, bii bokkul ak nit daf bi nga xamante ni ma ni ma ko mën a waxee ça tey nit dafu Sénégal la nit dafu àdduna la tey bi mu wàccee buntu Pikine wàcc taal Instagram moom di def live am di wane ni man carrément bon nit laa comme yéen jullit laa comme nit ñi di wàcc buntu Pikine di jël café di ko joxe mu doon loo xamante ni yàlla rek moo tax ma koy def doon loo xam ne image bu rafet la aussi tamit tey dama naan yi am na dem mais Sénégal am nañ dem tamit ñu bëgg a waxtaan ak moom ci Euh, di kontaan euh, def ak yow interview bi di kontaan ci sa ñëw déjà ci suñu euh, ndogu bi di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan yëpp di leen ziar ñoom it di kontaan vraiment waaw. Mhm. tey tey tey ñëw bi nga ñëw fii nga gis ñëpp génn bi nga demee ci station bi di distribuer ay ndogu sa fans si ñëpp vraiment kontaan tey tey ba yëg-yëg nga am ci loolu. waa sant yàlla rek sant yàlla bi mooy huitième édition ñu ko doon def corona bi taxul ñu xaw a taxaw. mais euh, tàmm nañ di ko def à chaque fois aussi mbégte bu mag lay doon si euh, moment de partage bi ñëw ànd ak sunu sunu famille euh, du ñu wax sax fan c'est une famille ñu ànd ak ñoom ne serait-ce que benn tàndarma ñu bokk jaamu yàlla yi yiw boobu lañ ci bëgg ak montrer l'exemple de partage l'exemple de solidarité de communion et tout ça donc à chaque fois ñu def ko rek dañ ci am émotion bu bu bu mag am ci mbégte aussi di ci sàkku ay ñaan di ci sàkku aussi ngërëmal suñu borom donc euh, lépp mbégte la daal tey bi nga ñëwee ci ci bi mën naa ne miin nga ko parce que des fois da ngay taal soo di xool parce que patriote nga ambassadeur nga aussi tamit tey nga gis ni heure ndog gis nga apprenti tey vraiment ñu ngi lay ñaanal bi ngi leen di jox ndogu tey tey tey tey loolu noonu aussi tamit mu doon image yoo xam ne image yu triste la aussi waaw waaw lu lu lu kii la lu am émotion la quoi mm-hmm. comme lii mooy Sénégal mooy partage bi mm-hmm. mooy bokkoo bi mooy séddoo bi mooy loolu daal donc à chaque fois nag moment bi ay moment yu yu yu yu yu chaleur yu lay doon parce que da ngay dajeek nit ñi ndogu fekk leen ci yoon nga dajeek ñoo xamante si amaan tey jàppandiwul woon yooyu yëpp daf ciy am daal ba tax na xam nga bu ci nekk day ndekk ay ay moment yu fort ay émotion yu foor et euh, ñu ngi sant daal ñu ngi ciy sant maanaam lépp mbégte la daal te duñ ko miin mukk nag bii mooy huitième édition mais à chaque fois day mm-hmm. que aussi euh, joxe lu baax la mais euh, liñ ciy jàngale mooy rek euh, partage partage solidarité partage loolu mooy jàngale bi et man nitu banlieue la donc euh, à chaque fois mooy def activité yu mel nii aussi si banlieue bi dama ci am fierté bu bëri am ci bonheur am ci plaisir et xam ni aussi wareef la e incha allah ñu ngi ñaan à chaque fois ñu koy mën muy gën a yaatu. Mhm. waaw mais tey mhm. est-ce que mën nañu xaar beneen yoon tamit comme lu ci mel ne ay Malika yëmbal banlieue bi. Mhm. du Pikine dong est que tey jii mën nañu xaar yeneen projet yeneen yeneen yeneen incha allah xam nga li mu doon reprise bi la. moo tax ñu def ko cette fois si benn yoon ci ci weer bi. mais dimanche yëpp lañ daan jël. dem ci coin yi bu ñu demee fii tey dimanche bi ñu dem fële bu ñu demee Kër Massar ëllëg ñu dem euh, ñu dem euh, Médina. ëllëg ñu dem euh, Parcelles noonu lañ ko daan defee. mais comme euh, ñu ngi doog reprendre ñu ngi doog a génn ci jamono bi ñu euh, corona bi ñu ne nañ def benn boo xamante si ni pour euh, la reprise la mais incha allah rab yi comme ni nga ko waxee dañ koy toxal di ko yóbbu di seeti ñenn nit ñi faneen ci biir banlieue bi ak ci fudul banlieue incha allah. <laughs> tey ban ban complicité nga am ak kila kila yi parce que tey gis nañ ni xàmmeewoo fi nit dof xàmmeewoo fi kii xàmmeewoo fi kii ñoom ñëpp ñu maçon mhm. doon benn aussi tamit mel ni ñoom ñoo la gën a bëgg affaire bi waaw samay frère lañ samay sœur samay frère samay sœur samay jarbaat samay cousin c'est une grande famille quoi ñun weesu nañu xëy na musique moo ñu boole woon début bi rap mhm. nit dof kila family LG Diwane squad mhm. mais dem nañ bi nga xamante si ni ay ami intime lañu ay frère lañu suñu xew-xew yëpp boo gëstoo da ngay gis euh, la famille mu nekk mu nekk mbégte mu nekk safaan. Mm-hmm. Euh, dañuy déplacé wu de Dakar à Louga di ñëw saa yu ma amee ay événement mu nekk événement wu naqar wala bànneex ñoom ñëpp dañuy ñëw. màggal ñii kër euh, kile kile la ñuy dal gàmmu ñii kër yeneen kile kile la ñuy dal c'est devenu une très grande famille mm-hmm. ñii di am doom ñii di am jabar ñii di tuddante doom mm-hmm. donc c'est une très très grande famille à chaque fois ma leen day nekk si man mbégte. day nekk si man loo xamante si ni dama koy sant yàlla parce que man la yàlla tudd sama jëmm bu xeebu bi ma dajale nit yooyu yëpp te nit yooyu yëpp tey dem nañ ba am ay relation yoo xam ni ñoom sax ñu gën a dëgërle seen biir que man donc dama koy sant yàlla di ñaan aussi euh, mu gën a yaatu waaw lépp di nekk lépp di nekk mbégte à chaque fois. mel ni xam naa dinaa ñëwaat tuuti parce que temps bi mayuñu ko te aussi tamit nekk ci yoon lii dañu ko may ngir cër boo ñu jox. cër nag cër la ñu lay delloo cëroob di la sandaat bu baax mel ni dinaa ñëwaat tuuti ci tey en tant mhm. parce que Nit Doff chaque jour gis nañ ne mu ngi teewal réew mi mhm. Nit Doff chaque jour mu ngi fayet man xam naa ci dara parce que am na durant Ousmane Sonko yi ànd nañ ko mhm. xeex taayoo guddi taayoo bëccëg temps ñu gis ni dafa am ay fuite yoo xam ne mu ngi commencé am ñu dama njëkkee ci actrice bi nga xamante mooy Alima Kadji temps yee defoon nga benn wax que ni mais ñu gis ni réseaux sociaux yi léegi feebaram bi dafa mel ni gars yi dañ ko gën yokk ba moom mu ngi génn sax comme si que dafa am dépression. waaye ñu ngi koy ñaanal rek tawféex suñu borom taxawu ko euh, maanaam euh, xam nga àdduna dafa dafa gudd tànk te euh, sotteegul quoi dund bu soteegul la lu ne xaj na si donc lépp loo xamante si rek mi ngi dal sa mbokk nit daf cay xool yow taxawaay bi nga ci war a lépp lu ci mën a def sutura. ak euh, lépp lu nga xamante si nii aussi mën na ci indi saafara nga xool noo ko ci mën defee te jàppe ka ni euh, wili pande bi ak euh, yu ni mel mën na ci ñàkk waaw ñaan yi ak compassion bi daal moo gën a ëpp solo que partage yenn affaires yi surtout yu ni mel koo xamante si ni ci dëgg yoonam la nekkoon di liggéey yàlla natt ko mu am ay ay tolof yu ni mel donc li ñuy def rek mooy ñaanal ko suñ boroom mu fëggam boppam defal ko taw feex ba ba lii yëpp féete ko ginnaaw moom ak yeneen ñi nga xam yëpp dañu feebar c'est vrai que ni euh, feebar yooyu moom dafa xaw a sensible xaw a complexe donc nit ñi duñu xam fan la affaire bi toll alors que mën na nekk loo xamante si ni euh, euh, bëri na ci société bi ay nit yoo xam ne ñi ngi xëy di liggéey ñu ngi leen gis nii te xamoo ni am nañ ay séquelles yoo xamante si ni yu yu leen you know mhm. donc dafa xaw a complexe trop quoi mhm. tey mu mel ni am na wax yoo xam ne yaa ngi wax que ni tôt ou tard dëgg bi dina feeñ mhm. muy kaaw Ousmane Sonko fan yi ñu ngi gis ay audio ni Tange Tandian man damay cité ay audio yoo xam ne mel ni que ni gars yi actuellement ni yàlla dafa dafa leen commencé weer daal ça veut dire. waaw waaw nañ nañ yem ci cadre ndog bi. te xam nga am na sax tur yoo xam ne boo wooree ba heure bi war a ci jaar day xaw a compliqué. surtout dossier bi nga xam ni tout est monté lépp salte mbir mbir yu la mbiru bandi ay kàccoor yu organisé wu pour euh, saltel ab gor. pour euh, éliminer ab adversaire politique. Mm. ñu def ci xaalis bu dul jeex. Hmm. recruter ci ay waxkat. recruter ay journaliste fay ci ay média hmm. ku ne xëy di saaga ku ne xëy di yàq. Hmm. mais en ah, métit la nag souffrance la bëri na Sénégal yi ci souffrir parce que ki ñuy songu bëgg ko faagaagal seen doom la seen rakk la seen jarbaat la seen champion la seen leader la. mu wane njàmbaar wane fit wane ngor wane honnêteté yam ci sa salaire respecter sa drapo mérité woon na lu ne. ci dëkk bi mu nekk demul beneen dëkk dëkk bi mu nekk servir ko mérité woon na lu ne lu dul acharnement bi di dal ci kawam mais nag yàlla moo fi nekk nañu dajaloo waat encore na ñu génne génnewaat xaalis bu bëri ñuy fayaat ay médias nañu fayaat ay journalistes mais suñ borom moo yor le dernier mot te dëgg rek mooy mujj et incha allah rab yi moom c'est quelqu'un de c'est un croyant waxam ci affaire bi bariwul mi ngi ci liggéeyam mi ngi concentré wu. et def naa que ni képp ku yeewu Sénégal rek mbir yi leer na ci yow moom waxul tontu wu leen ñoom ñi ngi jëf di tontu seen bopp temps bi di leen feeñal seen mbiru kàccoor yéen suuloon di sulleeku yàlla rek moo doole te incha allah rabi ñoom ñëpp dinañ weeru ci kattanu yàlla ci barki weeru koor bi. moom moom raar émission bi ngi nii ma koy topp moo tax ma déggee bi. <laughs> Ah. laa daw ni xaar ma ñëw mu mel ni question bi may terminer foofu noonu ci people bi a projet yi nga xamante ne parce que gis nañ yaa ngi lancé benn tournée boo war def aussi tamit candidat bi pour Pape Djibril Fall dañ koy rafetlu Pape Djibril Fall jàmbaar la euh, ku ndaw ñi am ci moom yaakaar la ku sell sell xalaat la ku ku rafet ay xalaat la et euh, ku yàgg waxal ndaw ñi ak waa réew mi ak nitu dëgg yi ak borom xel yu sell yi euh, dëgg yi ñu bëgg a dégg maanaam xalaat yi ñu bëgg a dégg yàgg na ko teewal donc bu ñu gisee ku mel noonu mu bëgg a dem ci fa ñuy waxee fa ñuy décider fa ñuy xalaate loolu day dal xel parce que mbir yi dafa yàqu ñañ fay gis dalatuñ xel yañ fay dégg dalatul xel ay trafiquants de faux billets ñoo nekk assemblée ay trafiquants de faux de passeport diplomatique ay faale ma Sénégal man sama partie la faale yooyu fa am soxla nañ nag ay nit yu am conviction yu am ngëm-ngëm yu yu ay xalaat yu sell yoo xam ne ay nit yu am kii lañ dignité soxla nañ leen ci euh, fu mu ne assemblée nationale muy Pape Djibril muy Guy Marius muy jàmbaar yu mel noonu ñu ngi leen di ñaanal suñu borom mu suturaal leen ba projet bi nii mu antu et ñu am ci ndam parce que soxla nañ xalaat yu sell yooyu noonu ca ca ca cappaandaw ga waaw. Mhm. tey jël nga xamante ni Barthélémy Dias na ko sa ñaari sa xarit muy say say say say am di jàmm di ay patriote aussi tamit geste boobu noonu nan nga ko gisee. waaw dañuy saluer Barthélémy courage am ak loolu yëpp ci jàngale la ci wane que ni ci jamono yëkkati gor yi fa lañ toll. ci mm. jamono yëkkati borom xam-xam yi. Mm-hmm. ci jamono yëkkati patriote yi bëgg réew mi. Mm-hmm. parce que beneen côté bi toroxal gor ñi lañ bëgg. Mm-hmm. képp ku bëgg a doxal dëgg ñu toroxal la dàq la rajee la wan la ne doo fi lekk doo fi naane di xiif. pendant ce temps ñuy jël ay sagaru nit di leen jox terrain wu yi. alalu Sénégal yi million wu Sénégal yi ñu gis ay sagaru nit eeru euh, yëkkati jambaar yi la eeru yëkkati góor ñi borom dignité yi ñu euh, ñu braqué projecteur bi ba ndaw ñi mën a roy ci ñoom ne foo ta nekk di liggéey del sëdd yàlla del sëdd euh, serment bi nga defoon del sëdd dëgg foo fekk ay tooñ fexeel ba da nga ciy dëgg sa tànk capitaine Touré wane na exemple bi gii Marius taxul kenn di wax donc Barthélémy Dias dañuy saluer geste boobu mu def geste héroïque de bravoure pour wane ka ni en tout cas de man Barthélémy Dias bu fekkee ni maay décidé ñu baax ñi laay laay laay euh, dooleel gor ñi laay dooleel jàmbaar yi laay dooleel te du ma fekk fu ñu leen di toroxe donc ñu ngi saluer son geste di ko ñaan yàlla moom aussi euh, ndomba tànk yi ñu ko dénk mu am ci ndam ba soppe yëpp kontaan ba noon yëpp ruus incha allah rabbi. Euh, ki la daanaka fi may jeexalee mooy tournée bi mooy tournée bi nga xam ne yaa ngi koy waaj. tournée bi hmm. kañ la. waaw le 14 mai la ñuy commencé à Louga. incha allah rabbi stade Albouri après le 28 ñu dem Ziguinchor après am na calendrier boo xamante ni fixé nañ ko jàppuma date yëpp am na yeneen dëkk yoo xam ne war nañ ko yokk ci tournée bi incha allah on va essayer de lépp ci suuf après ñu def benn calendrier bu bu complet quoi. mais incha allah la ñu commencé à Louga. le mais mai et le 28 mai euh, on sera incha allah à Ziguinchor. ce mot de di la jaajëfal di kontaan di baalu ñëpp nag Sénégal yëpp ci samay kaddu samay dëng-dëng sama matadi. Euh, di euh, di. big up patriotes yi jàmbaar yi nga xamante si nii ñu ngi jël seen temps di euh, taxawu Sénégal di jël seen crédit di jël seen xaalis di jël seen cotisation di bëgg a euh, fësal lu baax bu ñu gisee euh, injustice ñoom ñëpp taxaw tem na dañ koy fas faj boo waral seen cotisation yi nga gis ñu koy def di jàppale ay gor et di leen gën a ñaax di wan ka ni fi ñu ko teg foofu la diaboliser bi ñu leen diaboliser yëpp bu ko kenn déglu parce que ñoom ñoo nekk ci dëgg parce que dañoo yàgg abandonné Sénégal Euh, ay màggatu kàccoor ay naafeq ay nit yoo xam ne xam nañ ci liñ nekk du dëgg xam nañ que ne ñoom ñëpp ay détourneur de fonds la ñoom ñoo toroxal Sénégal ñoom ñoo yàgg toog ne kenn du wax. ànd ak seen yenn média ànd ak seen ay journaliste ñu yàgg a lëre askan bi ñu dem ba jëmmi jamono ndaw ñi jël seen responsabilité commencé wax seen xalaat ci réew mi seen i métti métti ci réew mi di dénoncer lu dul dëgg ñu ne non ndaw ñi li ndaw ñi laa buñ sañoon nag ndaw ñi dañuy noppi nekk ci pecc mi mm-hmm. nekk ci tiktok bi nekk ci mm-hmm. leneen daal di fàtte réew mi loolu lañ bëggoon mm-hmm. léegi nag ndaw si ñi daat ne noonu noonu ñun am nañ ay leader yu ñu wan lan mooy politique dañuy wax ci mbiru dëkk bi loolu nag maa ngi ci leen ci ñaax ñu gën ci jàpp ñoom fu ko jàpp foofu la buñ ci dellu ginnaaw màggatu kàccoor yëpp waratuñu am fitu toog ci télé bi màggatu kàccoor yi waratuñu am fi toog ci télé bi dañ leen a war a wan lu tax suñu détermination ba ëllëg ñu xam ne bu ñu toogee ci télé bi seen yëfi kàccoor yañ daan def toog ci télé bi di saaga ay gor di fenal ay gor di tuumal ay gor bu ñu génnee jot seen chèque loolu jeex na loolu il faut que ndaw ñi taxaw ci bu baax te maa ngi gis ne ñu ngi koy def maa ngi leen ci encouragé bu baax a baax lépp ci yar teggin nag lépp ci yar ak teggin mën nañ àggale suñu mission àggale suñu détermination te duñ def loo xam si euh, ñoom kàccoor yi daan ñu mën a jaxase ak askan askan bi donc nañ koy bàyyi xel bu baax ndax euh, mouvance yi yëpp ñi ko jiite euh, ay borom xel yu sell lañ dinañ def seen liggéey ba àgg kenn du dégg benn baat bu bu tegginewul donc nañ jéem a roy si ñoom à image et jàllale suñu détermination di ko def ci yar ak teggin ak xam-xam ñu fi màggatu kàccoor yi indi borom xel yu sell yi ñu jiite réew mi incha allah rabbi voilà gars yi mu ngi noonu ñu am contentement lool ci dalal ko fii nii vraiment jël nañ temps aussi tamit mais dafa doon loo xam ne da kii dama ko yàggoon na ba pendant deux ans dafa dama dégg bande annonce bi rek mooy damay ñëw mu doon ay gestes yoo xam ne gestes yu nice la ay gestes yu noble la parce que weeru koor jot nga jël sa alal xam nga wàcc gaare sa oto di dox di gis li gars yi dund parce que banlieue dafa doon benn benn genre benn genre jamaïcain da ngay gis apprenti yi fii xam nga chauffeur yi fii taximaan yi fii ñëpp dóor waar moo leen tax a jug kon le fait que muy yëkkati alalam di ko def xam nga di joxe ay ndogu kon dañ koy ñaanal sunu borom mu koy yàgg def ba mu nekk ay annuel yi annuel yi annuel. di tax interview bi defoo ko en français. <laughs> il faut ñu def émission boo xam ne lépp France lay doon. waaw waaw dañ koy programme <laughs> incha allah <laughs> d' accord yi kon ñu ngi jox daj jox daje ci yeneen i émission incha allah bi di leen jox tournée boobu noonu bu soobee suñu borom di nga ñu ci gis ak équipe bi mandal yëpp di nuyu caméraman yeeg ñëpp di nuyu kile kile yi di nuyu waa Pikine di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm